mbokki téléspectateur Equivox TV mbégte rek lañ amaat jàkkaarloo waat ak yéen fii ci suñu journal de ren di leen jaajëfal bu baax a baax mais surtout tamit di leen baalu ak di leen baal ak bu baax a baax di leen euh, dalal jàmm fii ci journal de la ren bi nga xamante ni dama ciy ànd toujours ak ki nga xam ne mooy euh, l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la ziar naa la mais tamit di la baalu ak ci weeru koor gi ñuy tàmbali. maa ngi lay fay soxna Oulimata di la baalu ak yow tamit di baalu ak mm-hmm. yàlla koor gi comme ni ko waxee duggee bisimilah rahmaani rahim nii yàlla nañ ci génn alhamdulilahi rabbil alamin lépp luñ si jaamu yàlla wala ñu ñaan ko si yàlla na ko yàlla nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp di wax ne que tey comme niñ ko xamee rek ah, am nañu xam ne um nañ tey koor am nañu xam ne tamit suba lañ koy def mm-hmm. mais lépp rek yàlla rek a xam daal yàlla mi nga xam ne daal moom moo ñu moom moom yàlla na fay ñëpp rek ñun loolu la ñuy ñaan di wax ne que rek weeru koor moom weeru ngëneel la weeru yërmande la weeru njéggal la kon yooyu yëpp yàlla yàlla nañu daje ak moom ci barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la wax ne tamit namoon naa la bu baax jërëjëf Babacar maana raw foofu ay ca ñu dem donc seetaani suñu revue des te ñëwaat ci plateau bi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 Modou Lo mu Parcelles Assainies Modou nag moom ke mu xëy di waxal du kenn ku dul Ama Baldé ma nga xam ne moom la séqalub combat Modou ne na ko li am ba des daal yow jàppal tey ngaa tey ci mbag mbir yi wala nga tey ci man maanaam Modou kon mu ngay ga dànka fi nga xam ne nii moom moo di Ama nee na ko li am ba des daal combat bi moom ndam kese laa ci bëgg te gisuma ci leneen lu ndam boo jàppee ne ndam daf laa gën a ñor ni man yaa ngi nax sa bopp loolu la ko Modou loo wax ne ko ku mu mën a doon nga bëgg ndam ci combat bi Modou ne na maa la ko gën a bëgg loolu moom sunu làmb xëy tey wan ñu ko ci xëtam wu njëkk yëglikaay bi suñu làmb moo xëy wax nu ko mel ni tamit koo xam ne bëri woon na fi ak Modou Lo te bërki dem mu bëriwaat fi muy Eumeu Sène yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ci loo xam ne daal jàpp na ne ah mbaa du nekk ay jafe-jafe ngir moom ndax nag ginnaaw ba mu ñàkkee combat ak Modou Lo digganteem ak Lac mu ñàkk ko négociation yañ doon wax ngir mu bëre ak Balla gay loola annulé nañ ko moo tax yëglikaay bi xëy tay sampob laaj ne ban adversaire la Eumeu seen di bëreel am na koo xam ne nag moom écrit ba Eumeu seen nekk di fa bëree moo ko jiite muy Khalifa Niang di écrit tay singa ginnaaw démb bi Gaston Mbengue xam le ne daal kii di Eumeu Sène wala Gris Bordeaux kenn sañu cee génn naan ko jox ma cent ngir mu bëre ak ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye daa mel ni Gaston moom Khalifa ñaa xëyul tey may ko dara maanaam attaqué na ko tontu ko lam ko xamal daal nee na ko loolu ngay wax yow rek la tey eh, wax ji yaw la engagé waaye lam ba daal yow Gaston na Sénégal yépp xam ne yow yaay dox ci ginnaaw mbër yi di daw ci seen ginnaaw yow nag du yaa nuy wax li nuy fayeku wala lu ndul fayeku maanaam daal li am ba des daal Khalifa ñaa jàpp na ne Gaston Mbengue la muy wax moom la engagé ndax moom Gaston mooy daw ci ginnaaw mbër yi yëg ba moo xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni tamit wax na muy Sidi Diagne PDC sew Excaf Télécom moom nag wax na ne daal nee na mësu ñoo discuter ak Eumeu Sène ci ab tournoi yëglikaay bi moo xëy ñëw dina ko wax tamit ñëw na ci li nga xam ne ni moom moo di kase wu Eumeu Sène contre Modou Lo nee na loolu daal yeggoon na ci cent cinquante million ba tey Sidi Diagne daal moo xëy tey di wax ci yëglikaay bi di suñu làmb ñu dalal ko fa mu ngar daaju wax fa lu baree baree baree bari ñëw na tamit ci Ama Baldé mi ñu ko laaj ndax yéen a ko révélé wala déet mu ne loolu wax ku day rëy nee na Ama moom du ñoom ñoo ko révélé waaye la am ba des daal combat yu rëy wala ay champion yoo xam ne yu mag a mag la yu mu daan nee na ba loolay am moom nee na ñun loola moo ko ñoo ko tëggoon moo ca tournoi TNT ba keneen koo xam ne itam tëgg na combat espoir boo xam ne bu rëy rëy la muy mbay Yékini yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci boobu combat muy diggante ndongoloo ma ngeen xam ca Sanjambur dëkk Grand Médine ak Cheikh Tidiane Niang ma ngeen xam xam ma nga xam ne tamit parcelle la yeewoo mel ni ki daal booba combat loo ci mën a dégg ñaari mbër yi moom la ñuy diggante saf na sàpp am na koo xam ne moom de sa xëy tey di ko dankaafu muy rëg-rëg mu caarooy yëglikaay bi suñu làmb daal moo xëy tey ñëw ne ko rëg-rëg tey ngaa tey ci ki nga xam ne nii moo di guy gi ndax ñoo xam ne jege nañ la bokk ak yow gox ngeen di ànd ku ci ne rëg-rëg wala boog guy gi da laa frère ba nga séqee ak moom bés moo xam ka nga xam ne nii moo di Siteu la Ama Baldé wala muy nees ñu ne ko ñett ñii de ku ci ne ba nga duggee ci mbiri ka nga xam ne moo di guy gi la nga ca jëlee mujj la neex yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki non ba tey bu nu continuer yëglikaay bi ñëw ci lamb simple ji tamit ak weekend bi nga xam moom la ñu génn am na mbër yoo xam ne nii moom seeni affaire baax na ca bokk na ci aada jee ñaan ko aada booy bawal ak nga xam ne nii moom moo di góore ñaa ñu naan ko tuuni ak Elimane Diop ñu naan ko carrière mel ni ki daal soo bëggee dégg dëgg moom bu dee ca terrain gaal gi la aada booy bawal ak tuuni ñoo fa teg ba ñoo fa teg ndawal Adrien Senghor ka fa teg ndawal moom mooy carrière bu bawal lañ fa tegoon tamit moo ko jël keneen koo xam ne tamit ci làmb ji la nekk ba tey di wane boppam maanaam roi fa nga xam ne nii day wala fa nga xam ne moo di ca petite côte ba ñu naan ko ngañ seen ci lambi simple ji ngañ daal promoteur ba nga xam ne moom moo di docteur Sandika la mu tegoon ca mbuur moo ca teg loxo keneen koo xam ne lambi simple jooja moom xam na ko bu baax a baax muy Boucar Ndour bu Lutte TV tey nag yëglikaay bi moom la xëy dal ci rubrique Leewtoo Boucar nag mu ngay wax la ko gën a marqué ci la nga xam ne moo di lamb ci comba bokk na ci Tyson Mor Fadam nee na bii bii combat daal dootu ko fàtte bi yow mi din lu ko la loolu Boucar Ndour moo xëy tey ñëw dina ko wax kenn koo xam ne lambi simple jala nekk yëglikaay bi di record moo xëy tey dikkal ñu ci caaka fay ak ay mbiram yoo xam ne daal maanaam bokk nañ ci excès de pois yoo xam ne am na lu mu ko xañ ci ay tournoi yoo xam ne waroon na koo jongante waaye waa CNG daal record xëy na ñu xamal ne daal soo bëggee dégg-dégg moom génn nañu yeq wa ci bërki démb lu ñaaw lu bon la ñu gisoon ci arène nationale muy ay nit yoo xam ne seesee nit ñay toog la ñu jàpp di ko damm di ko sànni mel ni ki nag moom soo bëggee dégg dëgg daal yar ba génn de mbër ya nga xam ne jàpp nañ ne ñoom loola dañ koo def wala nu def ak seen supporter daal bu bëggee dégg-dégg aj moom fekk na leen ca yëglikaay bi daal dana am na ci ñoo xam ne sax atum yàlla nañ leen ko bokk na ci seex super jamono ak yeneen xale yoo xam ne ñu nga wan ca yëglikaay ba yemu ca nee na boo sàggane sax ab plainte mën na ca juddoo Luc Nicolaï tamit mel ni ki démb woowoon nañ ko fa nga xam ne moo di ca CNC moo ña nga xam ne ñooy waa Rock Énergie ñoo yor Modou Lo ak ñoo yor la ko waral nag mooy la amoon buntu seen TV te yëglikaay bi wala boog waa CNC jàpp na ci aw yoon teguwut ci aw yoon waaye Luc daal la mu leen xamal nee na lu ci mënte xew daal man Luc Nicolaï maa ngi jéggul ndax ku tooñ sañu jéggul la amoon maanaam responsabilité man la moo taxit maa ngi jéeglu te beneen yoon itam bu ngeen bëggee dégg dëgg danaa ko organiser te bu keroogee na ngeen ko bëggee lan kay defee maanaam teg ko ci aw yoon mu jaar ci yoon pour pëccëxoo bañ faa am mel ni kon daal seen see moom fi mu nekk nii gomis soo bëggee dégg dëgg ah seenu yet la ñu teg de képp ku xam ne da nga fee nekk bëgg a lëmbe lamb ji di ko yàq rawatina arène nationale bee nga xam ne biisu bu nu moom la nun waa lamb gars yi daa mel ni naru ñaaw may fooy a ak nag ndax boo ko defee rek maanaam ñu def la ko li olof lu ne këttu lu ne jonn rek moo koy faj. voilà lii lañu amoon donc tey ci suñu revue des titres journal de l'arène dañ koy dooree rek comme ça su ne ak suñu quotidien bii di suñu làmb Babacar tey suñu làmb xëy wax ci ki nga xamante ni kii mooy Modou mu ne moom daal il met en garde Ama Baldé Modou nag nee na moom c'est mon combat je veux la victoire plus que quiconque loo ñuy wax ci loolu tey jii Babacar. waaw mettre en garde su ko déggee mooy kuy waaw dànkaafu la koy def ba pare tamit nee na amul ku gën a bëgg ndam li digganteem ak Ama loolu nag actuellement mooy li ma lay wax rek bataille de communication la uli maanaam fi ñu toll nii waxante day am si ñoom ñaar ku ci nekk di nga génne nekk ci yow ndax Ama waxoon na fan yële mu génn na tey waxaat na loolu nag li muy wane mooy que ni ñoom ñaar seen combat bi niveau bi mu toll moo kawe te ku ci bi daf laa ñor ama combat bi da koo ñor lool mu tam combat bi ñor ko lool loolu nag des saa su amee bataille de communication bi day am psychologie lépp maanaam lépp day daje si biir combat bi mais nag fa mbir yooyu leere mu ñu ñaan yàlla rek arbitre génn seen diggante mhm. bu keroog gi nañ xam ñoom ñaar man xam naa ne ñoom ñaar ku ci ne bëgg nga combat bi waaye nag fu ndam liy féete loolu fa la mbir yooyu des loolu nag la koy wane mhm. ca bés ba lay am ñu xool kuy gën a pare mhm. kuy gën mentalement physiquement ak techniquement ak ci côté encadrement parce que loolu lépp daf ciy joué parce que combat yi maanaam loo ci waaye xeeb la ko xañ mooy encadrement mooy technicité mooy Euh, mental. Mhm. yooyu yëpp daf ci bokk ci combat bi. Mhm. waaw combat bi li mu làmboo daa bëri waxaal wuñ nag doole ndax ñoom ñaar ku ci du ku ci xepp wàllum entraînement moom. soo bëggee dégg dëgg bu keroog da nga am lu la bett te ñoom ñaar wane wuñ lool ci seen carrière dëgg la yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu fa jógee dañuy dem ci kii nga xam ne moo di Eumeu seen Babacar ñu ne moom nag il défait il est défait par Modou Lo et Lac 2 négociation contre Balla Gaye 2 tamit euh, annulé nañ ko donc euh, quel adversaire pour Eumeu seen fi mu ne nii daal dafa mel ni euh, xamaguñ exactement kan lañ koy jox mu jàkkaarloog moom waaw maanaam daal loolu moo lool ko dal moom moom Eumeu Sène defe naa sport noonu lay tëddee ah bu teglantee ñaari defet parce que ñàkk na contre Modou loo mhm. contre lakit lu man mënte xew dafa ñàkk combat bi ci ay avertissement yu mu jël yu bari euh, ba tax mu ñàkk muy ñaari defet kon mhm. ah négociation maanaam bu ñu doon négocier digganteem ak Balla ñu ne loolu dañ ko annulé ah kon quel adversaire adversaire yaa ngi fi ah pour man du tere ay xale ngi fi yoo xam ne mën na leen may sens ay combat ngi fi yoo xam ne war na am te bu tasee itam war na fa am adversaire parce que Eumeu Sène damay wax ne bokk na ci mbir ëpp adversaire si làmb ji wax dëgg yàlla ku mel noonu tamit defe naa ne pour mu bëri pour man du doon lu koy jaaxal Euh, tamit parce que liggéey na ko si làmb parce que tamit nekkul mbër mu ndaw mbër mu mag la te dégg defe naa ay uli ku bëre ba dégg roi des arènes wax dëgg yàlla ah dégg nga daal di si làmb te loolu yàlla def na ko ci moom dëgg la dañuy daal di daal ci ki nga xamante ni moo di Gaston Mbengue tey nag Babacar nee naa Gaston Mbengue mhm. néew ma Gaston Berger mhm. moom nag mu mel ni euh, dafa am li mu waxoon kii di xalifa euh, Niang daal di koy tontu ne daal Gaston Mbengue moom mooy ki nga xam ni mooy topp ci ginnaaw mbër yi ngir business daal daanaka waaw démb boo xoolee loolu dafa ñëwoon ci sunu làmba waa kan ne Gaston dafa wax ni. Mhm. muy ëmm wala muy giri kenn ñëwut a ñëw jàkkaarloog moom. Mhm. di ko laaj cent millions pour bëre ak Balla Gaye. Mhm. xam naa loolu moo tax nag njiital taay si nga tey génn muy Khalifa Niang di ko xamal ne ñun dawuñu ci moom tey suba waxi noppi. yaa ngi dégg moom mooy au contraire ne na moom mooy daw ci ginnaaw mbër yi. loolu la xalifa euh, wax. ngir business am loolu nag dama naan. ñoom ñooñu muy muy Gaston Mbengue wala muy promoteur yeeg président ak yeeg mbër yi defe naa ne seen werante wala seen xuloo pour man njëriñ li du bëri parce que li tax mooy ñoom ñëpp ku ci ne mhm. da am ci sa morom intérêt mhm. nit nag bu leen ay intérêt boole loo xam ne yéen ñëpp ciy jëriñu après mhm. defe naa ne du jar waxante yu exagéré déedéet warul jóge si promoteur yi warul jóge ci manager yi yi parce que waaw soxlante olof na ne ku bëgg fu mu fanaan ak ne sa der la xëy na moo tax tey mu xëy tey di tontu nga xam ne mooy Gaston mais yaakaar naa ne Eumeu Sène bëri na combat yu ko Gaston tëgg te loolu lépp lu mu ci mën a doon waxtaan ba juboo la joxante cër kon defe naa loolu tamit nañ fexe bu continuer rek. dëgg la incha allah euh, Babacar kii di euh, Sidi Diagne moom it di président directeur général bu Excaf Télécom moom mu xamale ne ne daal on a jamais discuté avec Eumeu Sène daal di xamle itam moom mii di euh, Sidi jaañ ne cachet Eumeu Sène contre ki nga xam ne mooy Modou Lo toll na ci lu lu mel ni 150 millions de francs CFA Babacar nga leeralal ñu tuuti rek. waaw loolu mooy maanaam bu waxee ne tournoi mosuñu ko discuter Eumeu Sène parce que dañ fi moom nag xëy na tey leeral bu fekkee dañ leen caa tuddoon xëy na boo deen ñoom maanaam am na ñu ci doon wax boola leen si ñoom waa Excaf mhm. PDC bi di Sidi Diagne leeral na nee na mosuñu wax ak Eumeu ci tournoi mhm. li ci des mooy kase bi mu amoon contre Modou Lo mhm. nee na loolu cent cinquante millions la woon loolu Sidi Diagne moo ko wax ah loolu nag defe naa ne kon wax ju leer naññ la

kii bu nar a metti la parce que Ndongo Lo dafa nekk ci benn descente maanaam dafay maanaam actuellement mhm. buñ doon liñ liñ la mën a xam mooy mhm. mhm. ah, bu nar a metti gën a taxawaat ci làmb te pour mu taxaat il faut mu daan ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Niang moo tax mu nekk combat bu compliqué quoi. nar na am solo lool. Mhm. kii di Siteu Ama ak Ness itam ñoom it euh, ñu ne ils sont freinés par guy gi Reug Reug moom il devrait faire attention au roi du simpi loolu moom yaakaar naa leer na nañ Babacar. waaw na def ndànk maanaam la ko gars yi wax maanaam na téye parce que li tax mooy ki mu ko seqal. Mhm. ñaari nitam yu mu làngal. muy Siteu ak Nees te ñu ñëpp ku ne xam nañ ne am nañu diggante bu tax ak Reug Reug guy gi da leen a freiné yemu ci Ama Baldé guy gi da koo freiné moo tax yëglikaay bi di dànkaafu Reug Reug ah loolu tamit lu jar bàyyi xel la ndax nag guy gi comme ni ko ñenn ñi jàppe wala ñu yaakaar ne daal combat boobu dafa war a ñëw taxaw daanu man du ma gis loolu déedéet parce que guy gi mën na bëre te itam sérieux na si li muy def te bëgg na li muy def te mbër mu dogu la loolu nag soo amee ci mbër moom da jàpp ne kooku ku jara bàyyi xel xam naa moo tax tey ñuy dànkaafu ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg pour mu def attention ci mbiri guy gi dëgg la Babacar euh, bu ñu fa jógee tamit dañuy daal di euh, jëm ci li nga xamante ni mooy weekend bi ñu génn mhm. mu mel ni daal euh, neexoon na lool lool lool ci wàllum lutte simple Euh, mhm. dañuy bàyyi rek nga wax ñu ci tuuti. waaw loolu moom maanaam boo xoolee maanaam muy samedi la commencé ak Fallou Ndiaye. Mhm. yaa ngi dégg Franc jël ko. Mhm. bët set ñu ñëwaat terrain gaal gi. ki nga xam ne nii waaw ba ba Franc jëlee luur bi lese ba ki ñuy wax booy Zil jël ko. bu Pikine ñu ñëwaat terrain gaal gi ak Jax aada booy bool muy aada ji jël poids lourd bi lese bi tuuni jël ko. fa nga xam ne moom mooy Adrien Senghor tamit ki nga xam ne nii moom moo di Elimane Diop moomu ñu naan ko euh, kii jël jël lañ fa tegoon moom tamit carrière mhm. ah Baldey Mbour tamit gis nga yëngu woon na ak galaaw docteur syndicat production moom tamit ngañ seen jën ko ngañ seen di xale boo xam tamit mu ngi wane boppam bu baax a baax mhm. Pape Thialis Faye tamit tëggoon na làmb dem fa nga xam ne moom mooy Ndangan Sambu Kaolack tamit amoon wala boog Fatick amoon na drapeau Cheikh Kanté mhm. mel ni ko lit simple bi moom maanaam weekend bi ñu génn moom bu bëggee dégg dëgg dafa yëngutoo yëngutoo yëngutu ba biig loolu nag moo lay wane lit simple bi vraiment mu mu ngi dox bu baax a baax a baax a baax. macha allah Babacar dañuy jeexale euh, suñu quotidien suñu làmb nga xamante ni euh, dafa daf ko daf ko jeexale fi nga xam ni mooy euh, rubrique bu Leewtoo daal di rek invité ki nga xam ni mooy Boubacar nduur nekk animateur ca Lutte TV moom nag mu wax ne lii di combat wu Tyson ak Morfadam doon na daal li nga xam ne moo ko gën a marqué ci monde làmb. waaw loolu moom defe naa ne combat boo xam ne nii ku ko seetaan dina la marqué. Mhm. ñu ñaan yàlla moo faram yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana Tyson la bëree loon Tyson daan ko yaakaar naa ne bëri na ñaari yoon mhm. fii la njëkk a bëree delluwaat Gambie mhm. bi ñu bëree fii nag dafa bari woon coow bañ demee Gàmbi leerali ko mm-hmm. ah, yàlla may tey seen ndam lu leer nañ mais encore une fois rek comme dëddu na ñoo ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko suñu papa Mor Fadam nekkoon mag mu yaru mm-hmm. nekkoon exemple mm-hmm. Boucar tamit maa koy nuyu di suñu frak di suñu frère di ko joxe cër nekk fële ca Lutte TV maa ngi koy bëgg baax a baax jaajëf dañuy daal di euh, dem ci kii nga xamante ni mooy le record ginnaaw bi ñu jeexalee ak sunu lamb le record nag tey dafa xëy wax ci ki nga xamante ni moo di caaka nekk mu ne euh, forfait de caaka pour excès de poids pourquoi tous sont coupables Babacar euh, ñu déglu la nga wax ñu tuuti loo xam ci li waaw loolu daal su amee moom maanaam bu ne pourquoi tous son coupables maanaam lu tax ñëpp nekk ci ay am ci euh, maanaam euh, responsabilité walla ça veut que ñoom bu fekkente ne caaka équipe nationale la ne équipe nationale di ko saytu mhm. war nañoo mën a xam kon ñoom balaa caaka yi compétir yi mhm. ban poids lañu soxla yaa ngi dégg mhm. defe naa loolu war nañu muy bokk na ci sax lu professionnel lu professionnel mooy yoon caaka war na dem foofu ñu koy génne ndax problème de pois bu bëri loolu moom bu amee erreur am na ci dirigeant yi nga xam ne nii mm-hmm. ñoom ñoo ko yore di doxal làmb ji te lu doy waar la tamit dëgg la Babacar mu xëy mu mel ni tey nag euh, dañoo xëy itam di wax ci li nga xam ne mooy violence yi nga xam ne jotoon na am fële ca arène nationale mm-hmm. euh, ci week-end ba la ñu jàll donc kii di euh, CNG moom daal dinay sanctionné lu toll ci cinq mbër mm-hmm. juróomi mbër te itam daal di euh, digle ni dinañ euh, dinañ mhm. porter plainte maanaam dinañu yëkkati ab plainte jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon na euh, dox ci violence yooyu wa mhm. waaw loolu waaw waaw waaw Babacar continue loolu daal moom li ñu ci mën wax lenn la rek ça veut dire que lu amoon la bërki démb ci lamb ji fa suñ mu duñaa tëggoon ay xale yoo xam ne kenn mhm. xamul lan moo ne ci seen bopp yi ah. parce que am na yoo xam ne ki koy def moom mënu koo xam noo koy qualifier maanaam koo xam ne jël nga ay nit maanaam toog nga ci ay sées yoo xam ne moom ngay seetaane jël sées yooyu di ko damm di sànni mhm. ah, defe naa nag loolu ba mu amee mhm. ay supporter a ko def supporter ay mbër mhm. mhm. kii di Luc itam daal di cay joxe ay kàddu te sax euh, daal di def ay promesse tamit waaw moom boo xoolee Luc Nicolaï itam la ko wax loo maanaam dañ ko convoqué woon foofu dem par rapport ak jàkkaarloo bi waroon ci Modou ak te amoon jafe-jafe mhm. moom taxoon CNG woo ko moom tamit jéegu na la pare dig na leen ne prochaine li amoon du amaat loolu tamit defe naa lu neex a dégg la te léegi defe naa lu promo promoteur bu ndaw mais xale yi daal encore une fois moom mhm. nañu jéem a ñun ñëpp sax laay wax nañ jéem a yaraat suñu bopp mhm. amaat ab yar am ay teggi loolu daf ñuy dimbali ci suñu dund dimbali ci suñu kanam dëgg la yaakaar naa itam ñu yàq loolu yàqal suñu bopp la ndax ñoo koy jëriñoo bien sûr ah looy toog mhm. boo ko dammee kay bu ëllëgee bu ñëwee fooy toog <laughs> voilà Babacar mu doonoon suñu dernier élément wu JDA ma di leen sant rek di leen gërëm bu baax a baax ah, ci ah, teewlu téléspectateurs di nuyu ñëpp rek di ñaan yàlla koor gi rek comme ni ñu ko ubbiwoon yàlla na yàlla nangu barke yonent bi sallallahu wa ay mbokk di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñu siif di leen balu àq bu baax a baax si njuum mm-hmm. tey parce que des ñu wax fi lu ëpp wala ñu def ko fi mm-hmm. te loolu lépp ay sénégalais ñoo ñu seetaan di ñu déglu mm-hmm. te bu ñu sañoon lépp lu ñuy wax wala koy def rek day méngoo li nga xam ne mooy jaar yoon parce que loolu moom moo tax ñu toog fi mhm. tooguñu fi pour wax nit lu ñaaw wala pour déstabiliser nit wala pour nangam sangam non non parce que comme li ñu wax rek mhm. ñu micro bi ñu yor fasuñu ci yéene leb la bor wala ñu ciy fay bor dañ ci fas yéene rek teg ko ci digg bi ku ci nekk lañ si moom ñu jox la ko mhm. dëgg la Babacar jërëjëf en tout cas ñu ngi jaajëfal également ki nga xamante ni mooy suñu cadreur bu baax bi di Gomis euh, suñu réalisateur euh, Ami Diouf di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba ëllëg incha ci beneen JDA